من أين غير بسم الله waa coowal Petro-Tim moom ah fan la toll waaye tamit yéene kaay ne coowal Petro-Tim jooje ah daanaka waxatuñ ca de daanaka waxatuñ ca laa la wax waaye laa kon lañ cay wax day néew na lool maa la ko wax demoo ni sénégalais yi bëree bëri day wàllum ger gi ah ak ni ñu jëlee suñu alal ji di ko caxa-caxatee ci biir réew mi ne leen day waaw loolu mi dina leen de lool ma ne la plainte bi nga xam ne daal dinañ loon xam leen ne daal dinañ koy déposé day def Frank Timis ak Aliou Sall waaw daal di def lu ni mel day plainte boobee kay la ñuy laaj fan la toll ba léegi ni lee looloo jar a laaj waaye nag président Macky Sall day mago Aliou Sall ji waaw soo leen gisee nag mu dàq ko kii di Nafik moom kay taa safara si nga xam ne nag moo waroon daal maanaam këru timis timis gi Frank timis waaw safara joojee nga xam ne kon moo waroon këram nga déy ak ñi nga xam ne maanaam ñoo nekkoon na ca kër timis ok doon daataata lax ak ko gundaa naata ko waaw ma ne la président Macky Sall kon seen xal yooyee la bëggoon a fay de maa la wax waaye président Macky Sall tamit day dimbali waale na ay nit yoo xam ne de waaye ca weeru avril 2016 day am na ci ab réunion vidéo conférence waaw boo xam ne day doon nañ ko amal na diggante Angleterre ak Sénégal kii Londres ak Ndakaaru ngay jël joo mu doon dox nañ ci diggante responsable of nag yii ci benn pàcc bi beneen pàcc ba day ay ndaw yoo xam ne unité internationale de lutte contre la corruption waaw nga xam ni ñoo toogal National Corruption Agency NCA waaw ñoo leen toogal ca bitim réew ñoo ñoo séqoon kon bu saltale wax ma ñoo ñoo doon ba tribune ne gis nga day seen liggéey bu doon bi bi Sall Frank Timis waaw seen liggéey bu la Angleterre di ay xibaar yu ci yu Sénégal di te yi préparé nañ lay wax ni day rapport ba mu fukki ñaar ci mai ci 2016 waaw ñu di leen invité ci réunion bu de sommet mondial yi guerre jamono nekk nekkoon ministre industrie ak mine waaw moo fa teewaloon Sénégal de ma gis nga ca jamono joojee na fi ñoom kay waaw ma ne la bàyyi sax dee fu mu yekkee nakam liggéey liggéey déet ya diir ba nga xam ni kon amoon na ko day la muy néew yëpp waaw ma ne la woon na ca ay bomb yoo xam ne day ci nguur gi ah mar day taal mar day taal looloo taxit nguur gi daal di patapatamee nag kon ndax xam gi moom na fi ngom dama ne la décret nga xam ne Alioune Sall day jéem moom par ngir laaj ay question waaw waaye daf ñoo xamal carrément ne man leen a ñëw ali baba naar tàng jër fa tàng jër kay mooy Casamance la ko si yéene ne enquête bi nga xam ne ñu ngi koy nag ci doomu yi nga xam ne kon rey nañ leen ca ba faa googee waaw am na ci ñaar fukki doomu yoo xam ne day defeere nañ leen waaye am na kenn ca ñoom day daa mujj faatu inna lillahi wa inna ilayhi bu lay wuyoo libération ne ma ne la ba day waaw bëgg naa leeral nag doomu nga xam ne kon nañ leen a rey ca ba faa René journaliste ba nee nañ daalaale day ak ni ñoo ñee ni kon rey nañ leen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun journaliste ay nit yu bëri day gendarmerie section waaw ñoo leen ci suuf ca Casamance Casamance ko kay enquête kay nee na ni àll di doxee day bu bees bi nu ba bi waaw nguur gi mujj naa ci biir àll bi de mar d'Italie ma ne la président Macky Sall mi ah ci nit ñuy jëfandikoo na kon war nañ ceeb ah la maa ko wax projet de waaw ma ne la tolloo juróom fukk ak juroom ay article ña ngi ko déposé na ca présidence de la république di palais ba ah, waaw luy lii moo tax it ministre Mame Thierno Dieng environnement ak Abdoulaye Bibi Baldé ma fa nekkoon day woo nañ leen de interpellé nañ leen de ña ñoo interpellé kay mooy meeg mu kawe mi le réew mi quotidien en tout cas université démb day waaw xeex ba fa am day miti noonu lool ma ne la am na ci benn grenade boo xam day na fa benn pavillon de enquête yéen kaay ne ko dëgg la ma ne la police yi kay safara dëgg sax la ñu démb ci chambre 28 pavillon des mariés la moo tax it am na ci ay étudiants yu bare bare tooguñ sax di xaar week-end bi jot dem nañu ndax seen wàllum kaaraange ci boppam kon la ñu tiit léegi kaaraange amul démb ca ndajew cadre yu PDS yi dee laas réunion cadre PDS yooyee waaw tàng jër la laa la wax diggante ñooñu yi lée ak Aziz Diop Aziz Diop ka dañu ne Macky Sall da koo recevoir mbaa du day transhumé laa gën a nekk PDS ba ca Suisse ay Vox na waaw bàyyi na de mar d' Italie ma ne la dem na ca Idrissa Seck léegi réew mi Cheikh Yacoub Dramé lay wuyoo nee yi ne moom laa doon gis monsieur Macky Sall day discours ba waaw daa méngoo lool ak jëf yi muy def tey la day rafet na la c Alioune day waaw seeti day rafetlu nañu ko ne pour day danañ leen fay tey maa la ko wax tribune yéene kaay ne ci tolloo juróom fukk ak juróom ci ay école privée tey nguur géeng leen yoreel xaalis fukk ak juróom ci ay milliards la ilaha illallah enquête yéene kaay Donald Trump wàllum racisme président Macky Sall dañ ko mere ba léegi nii ne la ala vox populi ne xanaa lu tolloo ñeent fukk ak juróom ci ay ambassadeur waaw bind nañu Donald Trump lé di ko jubanti maa la ko wax dem naa ca football ba Thiès dañ leen a baal daanaka waa Mbour day mer nañ ca torop sax ma ne la askan wa nga xam ñoom ñoo yeewoo ca Mbour gee waaw nee nañu am nañu mbetteel torop sax te ni ñoom day commencé woon nañ nag di wan seen mitit gi daj bi di ruus waaye dogal bi wàcc seen kaw day waaw daa mel ni baaka boo xam ne rek dañ koo jël jamaat ko ci biir góom laa la wax maar di daale professeur Abdoulaye Sakho nee na gis nga lii nag ci enquête yéen kaay lii fédération bi war <laughs> Royal.